murit a koy tabax sëriñ see digle ñëpp ay texe boole ñu leen dimbale ku fa dëkk kenn koy siyaare moo leen musal moom doomi soxna jaar ku jundullaahi mosa wër ngay bàkku yàq nga lu tax la ngay làkk ku mooy ku mooy rasoolu Moustapha yoneen ba ak maami seexi fan ma sëriñ bu mag lii rek tax rijaale naa rijaale du njàkkam ti yowmal xiyaam ngi rek lay xew si waxaadani ilayhi bi taxalli min baadi ma hazaba bi taxalli wa jarrani fiihi ila al ulumi wal fawzi wal amali bil maalumi thumma salaatu bi salaamin tabia ala allazi qasdiya an atabia ala allazi man bi maradi yuqtada fi sirri wal jahri yakunu muqtada huwa allazi haajara lil madina bi amri rabbihi fasaana diina wasilati li maliki rafiici muhammadin xayril ndigal muy Cheikhul Xadim tey jii ki nekkal Cheikhul Khadim ci kaw suuf mooy Cheikh Mahamadou Mountakha ku ne xam na ne laataa muy dem bay nokk jotaayu Serigne Touba jàmm la mas di bëgg jàmm la mas di woote kon bu ñu ba toll fii réew mi fi mu toll ak yëngu-yëngu yi ni mu bëree lu nekk crise bu nekk ñu koy dégg menace bu nekk ñu koy dégg terrorisme bi mu ngi fi jihadisme yi ñu ngi fi ak yeneen ak yeneen réew mi pétrole ñu ngi ko fiy wax di fi wax gaz di fi wax yeneen ak yeneen ñuy doog a jóge ci ay élection présidentielle yoo xam ne foogoon nañ ne coow li dana bëri foogoon nañ ne réew mi dana tàkk mu joxe woon ndigal laataa ñu ci àgg ci nañu jàng alxuraan te ñaan jàmm yàlla defal defal ko sutura nangul ko ndax ñoom luñ bëgg yàlla def ko ñu def ko dugg ci jàmm génn ci jàmm tey jii it mu waxaat ne nañ defaat loolu ngir sant ko suñu borom ci li nga xam ne ñaanoon na ko moom te suñu borom may ko ko. jàmm moom am nañ ko ñun ba pare buñ ko xamee ak buñ ko xamul comme ni ko suñu Sidi Muxtaar doon waxee képp ku ànd ci dëkk bi yaa waa dëkk bee koy bokk képp ku ànd safaan wi it yaa koy wéete yow kenn bàyyi ñu am suñu jàmm ji waaye jàmm moom mu suñu tuwaax sax fàggul nañu ko ba pare ci biir ci biti ko xamee ak buñ ko danañ am jàmmi àdduna ak ju àllaaxira ndem ñoo ngi topp ci ndigal li nga xam ne moom lañu Serigne Touba tegal ñu fas yéene koo jëfee jàmmi Sénégal nag moom ku xama ku xamut ku la neex ku ne mën ko jiñ ne moo ko fàgg waa Serigne Touba ñu ko fàggu ñun waa Sénégal te moom rek nag la ñuy am dara duñu ko tee amee nag képp koo xam ne yéene nga ñuy jàmm wala indi nga jàmm jàmm jooju o koy bokk képp koo xam ne da fas yéene andi leneen lu dul rek jaam ay woowu day des ci yow jaamu ji del siwaat ci mbooloom Serigne Touba wax yi génn yooyu yëpp ñu bañ koo déglu te di topp ci ginnaaw si Muntaxa rek déglu ndigalam bañ a déglu lenn loo xam ne si lu yàq la wala wax yoo xam ne si lu faanu la lu loo xam ne dëppoo ak taalibe ñu moytu ko rek te déglu waxi si Muntaxa rek buñ ko defee rek ndam rek lañ ci am. non violence moom mooy Serigne Touba ndax ku ñu tooñ tooñarti la jëlee la fi yóbbu la géej nga def juróom-ñaari at ak juróom fan ñibbisi ñu wax nga ne jéggal naa képp ku ma tooñoon jéggal naa ñëpp ku ñuul ak ku weex ñaanal ñëpp santu daaree ni jéggal ñëpp ñaanal ñëpp tawfeex tax àdduna ak walaaxira yàlla yërëmal jaam ñëpp xàmmewul taalibeem ak kum jur ku bokk ci moom ku bokk ci zaaka wa li ixwaani jamia saadata daareyni xaqan ya samia habliya fi hada duaa al bil mustafa wal ali wa sahaba habliya xayra alqismi fi lmaqaasimi wali zawi ddiini bi jaayi alqaasimi walik sifan layla alhawal bahima bi xurmati almahbuubi ibrahima wali yasuq xayra xalaalin tayibi wa xayra jiiraanin bi xaqi tayibi wa safini fi baatinin wa zaahiri warham bi alxalqa bi xaqi taahiri waraqini tarqiyatan xafiya sëñ Muntaxa Basi moom de Serigne Touba rek lépp Serigne Touba doon woote lay woote li Serigne Touba meloon ci jaam ñi noonu la mel ci jaam ñi jàmm ji mu ñu mu ñuy woo ci loolu Serigne Touba mos ci saxal ne nañ ci nekk. man di Saliou Fall jaamu Serigne Saliou li laase mooy ñëpp ànd ak dal rek tey déglu ndigal di jox ci ndigal ndax soo ko defee rek doo génn doo wàcc aw yoon ndax Serigne bi kan moom li mu santaane leen rek la. lépp génn diinay lislaam moom sëriñ Muntaxa buñ ko dégloo ànd ak yar ak teggin di wéy ci ndigalam rek duñ juum mukk murit yi war tënku ci ndigal rek te xam ne ndigal moom moom mooy jaasi ji nga xam ne nii moo raw sax kun ci ñun ndax murit bu tënkootul ci ndigal moom moom moom boppam kenn yëlifu ko ndax sëñ bi da bi nga yaakaar topp ci ginnaawam bu la yëliful bu doon xut bu xàqan taxut mu mën laa jëriñ bu kilifteef xamul sëriñ bi bu doon xut bu xàqan taxut laa jëriñ kon nit ñëpp foog tënku ci ndigal fas yéene fee nekk ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha muy ndigal li mu joxe woon ci altine tolloog ñeenti fan ci weeru mars ngir ne na fi ñëpp daje ñu jàng fi alquranul karim daf fi durus xasida dafay salaatu ala zikrullahi ak lépp lu baax loo xam ne rek lu dëppoo ngërëmul sunu borom la ngir fas ci jàmm ju sax dàkk ci dëkk ci réew mi fas fi it naataange ak tawféex ak fi nayli salaah wasalliyan wasalliman alayhi wa kulli man xadintama ilayhi waxfir zunubi wa taqabal amali wa liyahab xayra munan wa amali yaa man ala anil makaani wal arad inni sakinun huna wa bi marat fakun anisi washini min assaqam hatta akuna salikan xayra laqam ya adlu ya muzillu ya man yuminu anta mujiriya huna ya muminu faabadan kun mumini ya zal jalal min kulli suin wa azabin wa dalal ya man ala an zawjatin wa an walad xutni wa xut jamia ahli zal balad wajan ilayi maskani tuuba abad mislas miha bi jaayi xayri man abad wa salliyan alayhi afdala salaat wa alihi wa sahbi zawi silaat sant Serigne Touba bu baax rek te ñaanal Cheikh Mountakha Bassir moom yaa sabram yàggal ko fi lool te may ko wér ba yéene ji mu am ci liggéeyal ko Serigne Touba ak naa li mu commencé yëpp mu yeggale ko ba commencé neen yeggale ko ci barkeb Cheikhul Khadim di wax na jërëjëf Serigne Saliou di sant Serigne Mountakha indi Serigne Bassirou di ko ñaanal borom passé bu r bi mu yàgg fi lool te wér ba li mun naa la liggéeyal maamam Serigne Touba mu defe ko ni mu ko soobee wax na am ci ak mbégte ndax chaque jour ak li ñuy def mooy di déglu siñu mun Mountakha ndax ndigalam moom njariñ la rek lu ënt ak moom rek lañ ko yëgee di ñaan mu yàgg fi lool te lim naa la liggéeyal maam borom Touba lépp. mu def ko ni mu ko soobee. tey jii bu woote waatee mbooloo mépp daje fi nga gis fu nekk nit jóge fi nit ñaa ngi walwali xale yeeg mag ñeeg ñëpp daaree alxuraan yeeg jànkatu xasida yeeg ñi def sikru laay ñëpp nga gis leen boole koog di def ay bernde dara manqué wu loolu mooy wane ne lépp lu sëñ Tuubaa bëgg yàlla defal ko mooy wane ne sëñ Tuubaa yàlla rus na ko. ndax lii xew ku ne xam na ne bu xewee te am ci jàmm te déggul dara lu yëngu loolu moom sëñ Tuubaa la yàlla rus yadi wa an daari sarian haysu an wal tudxil al maslaha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi wa alini wa aliman yuinuni wal takfini jumlata ma yuhinuni wa maskani sallim min al fujjaari wamnun ala al ahli bima in jaari wajalu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala yaa xayu yaa qayuumu kulliya mujib anta almujibu walkarimu walraqib ilayka wahdaka farartu min siwaak fakun bisaaka xaaidi ila hudaak waliyakun rabban waliyan wa nasir wali jamiil muslimina yaa bashir wa kassiran xayraati haza albaladi wa risqahu wal takfi an nakadi wal tusbitan fihi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa dëban yaa hakiim wa najjinaa min sharri haazaa zamani wa sharri gayrihi wa kulli